salaamaaleykum euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yëpp yéen a bàyyi seen ay yitte euh, tey ñëw ci saal bi ñu dubbee ñuy déglu waa ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew su taxawee fii tey sama xel day dem d'abord ci doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo def Walfadjri li mu nekk. ba ñun ñu man bi nekk tey di liggéey te nekk bi ci kaw suuf forcément sama xel day dem ci Sidi Lamine Niass sama xel day dem ci Abdourahmane Camara sama xel day dem ci Jean Meïssa Diop sama xel day dem ci Mame Less Camara mi jóge bu yàggul dara li tax may fàttali ñooñu moo di ne dama jàpp ne bu fekkoon ne ñooñu ñu ngi ci suuf tey bari na lu nguur ñemeteeg Walfadjri loolu mooy sama gëm-gëm ma te dinaa wax léegi lan moo tax lii ñuy dund yoon mënu ko expliquer benn droit mënu ko expliquer ci réew bii ñu nekk dañ koy woowee Sénégal mais sama xel day dem également ci ñi nga xam ne ay fans club lañ ay soppe Walfadjri nga xam ne dañuy dem ba bu Walfadjri nekkee ci jafe-jafe ñu koy gën a sonn ñi nga xam ne ñoo fi liggéey sama xel dem également ci les travailleurs de Walfadjri góor ñi jigéen ñi journalistes yi techniciens yi administratif euh, caméraman ñi nga xam ne ñun ñuy liggéey ak ñoom xam nañ ne at yi ñu génn lu nguur dajul ci taal ba koy daj et pourtant il continue à la tête haute di ko vivre xam nañ jafe-jafe ñuy dund di ko dund ak seen famille Ablaye na ko léegi dara gërul metti bàyyi sa njaboot di leen maa ngi dem wal ñu liggéey te boo ñëwee da ngay croiser les bras même bu ñu la doon fay weer wu dee nekkul sa xol yooyu il faut ñu rendre leen hommage Walfadjri nag lii di ko dal euh, du lu bees effectivement c'est parce que du lu bees que ñu commencé di ko miin te miin ko jëye la danger la ci mars mars deux euh, la ñu toog di voté après référendum ñu ne coupé nañu signal Walfadjri keroog ci la Sidi Lamine Niass yëkkatee waxam ju dee joojule nga xam ne ba léegi dañ koy fàttali ne Macky Sall su fekkee nii la ko bëgg a yeggalee nu ba fekk. alors jamono di dox ba Sidi Lamine Niass yàlla jëre fi en décembre deux mille dix huit bokk na ci waxtaan yi ñu jukkoon a waxtaan man loolu laa mës di défendre moo di ne man duma Sidi Lamine Niass Cheikh Niass mii du Sidi Lamine Niass keneen kuy liggéey ci Walfadjri du Sidi Lamine Niass am na combat yu Sidi Lamine Niass engagé di ko def. defe naa ne ñun mënuñu moo tax ñu ne woon lépp loo xam ne dafa jëm lépp loo xam ne dafa jëm ci ay position politique ay dugg ci xeexu politique suñu yoon new dañuy taxaw di def suñu liggéey li nga xam ne noonu lañ ko mas defee te ku seetlu Walfadjri xam ne li tubaab bi wax le traitement des ci lañ nekk mësuñu jóg te duñ ci mës a jóg bu neexee yàlla jamonoy dox ba mars deux mille vingt et un ñu ubbiwaat signal Walfadjri toujours au mois de mars ubbiw boobu ak beneen xam moo ànd ak les événements de mars li nga xam ne moo ci nekkoon wuute ak bii am tey mooy coupure yooyu ci CNRA la daan jóge di Babacar jiite su yooyu daan am ñun daanañ am daanañ xam kan moo ko coupé ak kan la ñuy waxal mais li doy waar ci coupure bii nga xam ne moom la ñu nekk di ko dund depuis pratiquement une semaine moo di ne ba fii ñuy taxaw nii di waxtaan kenn ci ñun mënul wax ne diw moo ko def lan moo xew mbokk yi le jeudi bii ñu wees war na mat juróom-ñetti fan tey ñuy def émission keppaar gi ni nga xam ne noonu lañ koy defee bés bu nekk ñu koy seetaan di ko déglu xam ne ak lu mënti xew dañ koy def li beesoon bés boobu moo di ne dafa dajee ñu joxe verdict gu mbir mi ñu tuddee affaire Sweet Beauté jour boobu ci plateau bu gi Pape Makhtar Diallo moo fa moo fa nekk Pierre Edouard Faye Oustaz Assane Diouf Mame Birame Wathie Cheikh Niass tudd kenn ku ma ci jël dama jàpp ne moo gën a responsable fuuf Moustapha Diop moo ko gën a bëgg fuuf jàmmi donc du ay nit yoo xam ne dañuy wax walla ñuy def luy taal réewum Sénégal. bi ñuy def seen émission le plus normalement du monde man ma toog sama kër parce que fan yooyu dama xaw a feebar ci la ma Babacar Diagne di jiite CDRA ci téléphone ne ma dama dégg ñu ne yi ngeen di wax te dañu coupé signal wala faj ma ma mais dama lay xamal ne man maay président CDRA man maa war a coupé maa ngi nii di dugg sama kër CDRA laa liggéey amul benn décision bu coupé signal wala faj ci laa ko envoyé Pape Mokhtar mu wax bi ko waxee ñi ko doon seetaan ñëpp dañ ne Babacar waxul dëgg parce que effectivement signal coupé nañ et pourtant Babacar de la presse bi ñu fi teg mu mën a coupé signal saa su neexee code de la presse boobule xëy na moo may autorité yi ñu coupé signal Walfadjri te code boobu dafa wax ne suñ ko coupé dañ leen war a jox notification. Cheikh su fekkee dama jub nga jubanti ma mais ba fii ñuy waxee amul benn notification bu jugee ci benn autorité wu Sénégal wax ne lii moo tax ñu coupé signal Walfadjri mais mbokk yi li gën a doy waar ci mbir mi mooy boobu ba léegi autorité wu Sénégal boo laaj mun na la demal ci keneen man mi ci sama bopp jël naa sama téléphone woo la ministre de l' intérieur muy Antoine Félix Diome jotuma ko mu envoyé ma envoyé ko message ba léegi tontu ci man mi ci sama bopp waxtaan téléphone ak le ministre de la communication muy Moussa Bocar Thiam wax nañ ba jeexal wax ji amul benn yoon bu ma waxee ne man yëg naa wala def na ñu coupé Walfadjri démb ci guddi di alxames jot naa téléphone Babacar Diagne bi jiite CNRA neko ko ñun nag ñu ngi bëgg a jaaxle parce que ay père ak i mère de famille ñu toog lu mat juróom fan. ñu tëj seen bérébu liggéeyukaay xamuñ ku ko tëj te xamuñ kañ lay tëj Babacar Diagne ne ma wool waa TDS wala nga woo le ministre parce que man du man su ma Babacar mi may ma ko sosal lu am ma jël sama téléphone woo Nafissatou Diouf bi nga xam ne moo jiite TDS te ñu bokkoon benn école bu ñu doon jàngee ba xam bu baax wax ak moom ne damay doon ñëw ba nouvelle pour xam lan moo tax signal Walfadjri tàkkul ba léegi. mu ne ma wool Babacar Diagne ma ne ko déet Babacar moo ne ma naa la woo ma wool Babacar Diagne ma ne ko Babacar moo ne ma naa wo woo mu ne ma Moustapha de trois mois du man du ñun ma ko d'accord ma demee ba ñibbi sama kër dawal sama oto ba tool fii ci Sacré Cœur moom na fi mu woowaat moom ci boppam ne ma dama lay dëggalaat ne li ma woo daf ma étonné maanaam daf ma jaaxal parce que du ñun ñoo ko coupé wool Babacar Diagne mbokk yi bu fekkee ne dañu nekk ci réew boo xam ne mën nga fekk télévision bu toll ne Walfadjri au moins deux cent familles dépendre ci pour di dund au moins nga mën a couper seen signal envoyé leen au chômage technique pendant une dizaine de jours te kenn ci réew mi mënu la wax ne man maa ko couper wala man maa joxe ordre pour ñu couper ko lu grave a grave moo tax ma gëm ne mbir mii du mbiru waa Walfadjri du mbiru les travailleurs de Walfadjri biru Sénégal gépp la Sénégal yëpp ñoo war a jóg tàkkal ko ne nañu bàyyi Walfadjri bu def liggéeyam ci jàmm ak salaam li ko waral mooy bi ma nekkee ci bopp Walfadjri ba léegi les travailleurs ñu ngi nii toog jàkkaarloo man su ma waxee ay safaan nañ ñëw weddi ko amul ci kenn ku la mas a woo ne ne téléphone ne man naa waxee ni wala bu ma waxee nii je fais confiance à tout le monde parfois on me dit fais trop confiance aux gens avec qui tu ku ci nekk tu fais ton travail en toute liberté en toute responsabilité d'ailleurs les rares fois man ma jël sama téléphone woo kuy liggéey ci Walfadjri day fekk ñu saaga ma man wala ñu saaga keneen ci Walfadjri ma bañ ko tontu ma woo ñu fiy liggéey rawatina jigéenu petit déj yi ne leen bu leen ko tontu buñ ñu saagaa ñun duñ tontu buñ ñu xasee bu kenn tontu mais ba kañ jusqu'à quand on va attendre ñuy wax nag pour jeexal bañ a que jot na ñu bàyyi waa Walfadjri ñu def seen liggéey ci jàmm ak salaam parfois da ngay toog ba mu jàgg nga ne non seulement on nous empêche de travailler mais on nous manque de respect pourquoi parce que fii ay père ak ay mère de famille ñoo fi nekk am njaboot fii ci Sénégal am fi ak baay bis bu nekk ñu xëy si du ñu def luy taal am réew suñu amee confiance ci RTS ne du taalum réew am confiance ci TFM ne du taalum réew am confiance ci Zik FM wala Sen TV am confiance ci Lamp Fall ak keneen keneen ne du réew mais pourquoi mënuñu am confiance ci doomu Sénégal yi nekk war fa ci ne du taalum réew ñun faruñu ci parti mësuma far ci parti te bokkagul ci sama yéene far ci parti amul benn parti politique ci Sénégal bu mën a ñëw taxaw ne Moustapha Diop ñëw na fekke suñu réunion wala Mame Birame Wathie wala Pape Makhtar Diallo wala keneen ak keneen ñi bokk ci parti dàqu ñu ñu ko dàqu ñu ñoo jàng mais on a fait nos choix choix bi mooy nekkuñu ay jàngalekat nekkuñu ay magistrat nekkuñu ay avocat nekkuñu ay mécanicien nekkuñu ay menuisier ay journaliste la nañu bàyyi ñu def liggéey journaliste mooy lan wuti information jox maintenant su ma Birame ba joogee wala Ramatoulaye Sarr wala Aliou Sow wala Pape Sané wala keneen ak keneen ne damay def chronique pour analise l' actualité du ma ne ko defee ko nii wala defee ko kuy koy xaar ci man say boo nga tëj Walfadjri définitivement mais doo ko am mbokk yi ñu ngi leen